ginnaaw grève ñetti fan yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllum transport amal nañu ko ci biir réewum Sénégal gannaaw waxtaan yu kilifa yi yëngu ci wàllum transport ak kilifa yi réew mi amal na nañu ko jamono ji dem ak dikk nekk lu jàppandi fii ci diwaan bu Touba ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum transport di rafet njot bu baax ci waxtaan yi nga xam ne roose na ci boobi la jataay. su li nga xaye moom lañ doon laaj am na lu ñu ci may. noo ngi xaaraat comme ni suñuy kilifa waxee ñoom góor a xuma li ñu wax ne ñu ngi may état fii mois. bu fekkee appliqué wuñ ko appliqué wuñ ko lépp dañuy dellu taxawaat nan taxawoon ndax nun lëggéey dong lan xam ak jaamu yàlla dong lool ak lan xam waaye taxaw neexul ah kilifa yi nag dem nañ ci jàmm dikk nañ ci jàmm lan doon ñaan it amuñu lépp waaye am na am na luñ ci am li askan wi dund bëgguñu woon mu dal ci kaw askan wi tam dal ci kaw askan wi te sañunu koo bañ waaye bu dee suñu wàllug bopp moom dara méttiwu ci ci nun ci suñu wàllug bu bopp dara méttiwu ci askan wi nga xaye ñoom leen séqal daal ñu am ci ay jafe-jafe moom noo ngi leen di mastawu di wax xam ne yéene wuñ ko woon dañ koo séq ak ñoo xëy nag dañoo gumba tëxlu bu fekkoonte ne gouvernement bu compétent moo fi nekk askan wi mën nañoo bañ a taxaw ndax syndicat yi wër nañ 14 régions yëpp di wax seeni naqar noonu ñuy wëree doon wëree 14 régions di wax seenu naqar nag waroon na bala noo agsi ci ñoom ñu woo leen toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax yàgg-yàgg dañuy toog waxtaan te li ngay mujjee de ko njëkkee. lii nag nga xam ne moo di grève am ñetti fan yi ci biir réewum Sénégal gi yëpp ñi nga xam ne ñoo de askan wi de yëg nañu ko lool dem ak dikk nekkoon lu jafe lool. Mbour laa jege waa ma laa bëggoon a ñëw. maa amul oto gisuma lu ma dugg mënuñoo dugg marché mënuñoo dem fenn suñu njaay taxaw gisuñu ndugg mu ñu lekk waaw waaw yëg nañ ko bu baax a baax waaw ah grève bi waaye sant yàlla bu baax parce que ñoom waa borom oto yi comme que liñ bëggoon am na rek sant bu baax a baax dañuy sant bu baax a baax a baax comme que daal affaire yi lépp jàmm sant rek parce que man damay dem marché di jëndi ndugg di jaay mais ñun amuñu woon benn ndugg bu ñuy parce que benn oto départ ñu daan indi ndugg benn oto mënta ñëw ba ndugg mi di wàcc. ñi nga xam nag ñoo di sëfoor yi nga xam ne ñoo yóbbu askan wi ñoom ñi nekk di rafetlu bu baax dogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko ngir dem bi ak dikk bi mën a jàppandiwaat ci askan wi. ministre bi de li nga xam ne moom la wax ni d'accord na ko suñu diggante moom su ko respecté rek dina dina ñu arrangé bu baax a baax sax. Oh, grève bi wax dëgg fa yàlla grève bi bëggee wuñ ko woon nii sax mais dafa nekk loo nga xamante ne si dem nañ ba toll benn instant boo xam ni dafa nekk loo xam ni dafa mënatul woon ñàkk. c'est parce que oto yi ñu ci bëgg a teg oto yi dañ ko àttanut te aussi tamit ñun wax dëgg yàlla àttanuñ loolu. képp koo xamante ne si xam nga transport rek xam ne transport metti na sooxe na euh, vraiment li koy def fi mu ne nii bari na transport particulier transport Wargaynde transport Jakarta transport. bu fekkoonte ni si ñoom ñi nga xamante ne si dañuy def transport boobu noonu ñi ngi fay droit yi ñi nga xamante ne si ñun ñi ngi ko ñi ngi koy fay kon du loolu du ñu naqari parce que ñun boo xoolee ni suñu oto yi parce que mën nañ la jigéen wérut la chaque six mois da ngay dem hôpital mooy service demi ñu consulter la xool li nekk ci yow may la wisit nga doog a dem. ñi nga xam ne nag ñooy kilifa way transporteurs yi fii ci diwaan bu Touba di yëkkati seen kàddu. juróom-ñaar ci ñoom yu tegoon na leen loxo ci diwaan bu Jurbel ñu teg leen loxo ci nu mu gën a gaawee. ah loolu moom li ni ci li li ci am mooy nu fexe ba xale yi génn rek nu delluwaat ci liggéey bi ndax maanaam bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk ndax ndëri sëy ko xam xam ne liggéey dong la xam ak bëgg jàmm kon du nitu violence. juróom-ñaari nit daal jàpp nañ leen ca ña nga ca biir kaso ba li ñuy wax ci kilifa kay mooy ñu bàyyi leen ndax nit moom foofu mu ne ndegam comme politiciens yi képp moom lañ def bu ñu leen jàppee seenu njaboot jog ne nañ leen bàyyi ñu bàyyi leen nuyu itam nan bàyyi sunu njaboot rek. nekat bu nu weesu àggee altine moom dana moom dana ci dana dana jéem a xool yoon wi aw nag bañ mën a bàyyi suñu mbokk yooyu bàyyi ñu delluwaat ci seen liggéey ndax defuñu dara nag. lum ci man di doon dem ak dikk moo xam ci région ba man di jëm ci biir réewum Sénégal fii ci diwaan bu Touba moo xam bis ba ci sept place loo ci soxla jamono ji lépp jàpp na fii ci diwaan bu Touba.